kon ñu ngi koy ñaan moom buur bi mu dox sunu digganteeg lépp lu nar a dox sunu digganteeg moom ak lu mën a xew ci àddina bu dara doxul sa diggante ak sa borom rekk baax na waaw loolu la waxoon ba mu demee Taif di wuti ndimbalu diine jaaree ko ci mbokk ñu sànni ko ay xeer saago ko xiir ko ay xaj sànni ko ay yat ba deretam di génn mu dem ba xaw a ñàkk kàttan tëdd ci ronu garab yaram wi yëpp di metti te deful dara yàlla kenn la képp la doon wax coono bi yëpp fekk ko ci waaye lenn la wax sunu boroom ne ko lii dal sama kaw ci fitna ak coono ak i metit lenn rekk moo ma yitteel mbaa sa mer lalu ko waaw mbaadu da nga ma jéppi waaw ne ko nattu bii maa ngi ñaan yàlla bu mu fekk sa mer moo ko lal yàlla na fekk ak lu ñu mën a teg ci sama kaw sa ngërëm mi ngi ànd ak man doy na loolu mooy buggul dara lu dox digganteem ak yàlla moo tax ñi ngi ñaan yàlla ñun itam yàlla bu dara dox suñu diggante ak suñu borom ak lu mën a xew ci àddina suñu digganteeg yàlla na rafet rek diggante boobu bu jage li noo tuddee coono ci àddina sax yow doo ko yëg nit ña koy wax rek waaye yàlla seede na ne ña seen ngëm fees daanu ànd ak nit ñi di wax coono àddina rek waaye bu dee ngëm gawër na nuy wéttalikoo yàlla ci seen biir dëgg-dëgg lu leen di déranger ci àddina du bare niveau boobu nag niveau bu kawe la xawul yomb waaye yal nañu ko yàlla defal loolu dong mooy muccuk àddina waaye àddina alal du dalal xel koppar gu bare du dalal xel wér gu yaram du dalal xel lu luxe du dalal xel waaye tëdd na ci hôtel boo xam ne étoile 6 la te fit wa togul way yor alal judul jeex te fit wa togul way yorul dara waye lamuy yek ci biir xolam ci digganteem ak boromam ci banexu yàlla moo dàqal ca loolu dong la ab jam wara a wo ci adina nit meuna dundu aljanna fi ci adina nit meuna ko dund te fekk du lek sax yap du lek yap du lek fruit du lek du nan sax ndox mu sedd te mi ngi dund dund bu dàq dund ba nuy nettalil ca aljanna waaye loolu kenn mënu ko am lu dul da nga wéttali yàlla ci sa biir xol dund bi yàlla dong moo mën a def loolu ci nit amul leneen nag alal ju bare sax mënul tax nga dund dund boobu mënta nekk moo tax mbokk yi nañu góorgóorluwaat ñu yëg ne làquwaay bi foofu la gis nga mujj jamono bu la kenn gëmloo ne àddina lii ma viise bu ma ca yeggee rek danaa estable c'est pas vrai alal ja ngay yuutu na nekk milliard bu ñëwee keroog ngay gën a nekk ci fitna laajal ñi amoon ni jot ca ginnaaw defunu lana waru def di xaar ba am jot mënunoo def dara am na ñoo xam ne defoon nañ ne bis bu ñu dundee ba ñu embauché leen seen àddina yépp baax na keroog ba nu leen embauché boobu lañ ëppi problème yow ñu embauché la yaa ngi liggéey ba pare di lekk am na gis nga ñoo xam ne bu nu fayee ko balaa weer bee deewaat ñuy leb te avant muy liggéey dafa woon ne ne bés bu ñu ko embauché addinaam neex na xam nga lu neex am yàlla am yàlla dong nga neex leneen luñ la wut loolu dul loolu nax nañu la te mujj jamono nag seytaane dafa yegg ak ñun foo xam ne dund boobu la ñuy xaj te lan ñu dig ci àddina duñu ko gis mbokk yi ñun ñépp dañu war a xam ne ay jaamu yàlla lañu yu yàlla indi ci kaw suuf te wutloo wuñu fi aljannay àddina yàlla dong lañu wutloo fexe leen a am sama ngërëm fii ci àddina te loolu boo ko wutee doo ko defal kenn sa bopp nga koy defal parce que jàmm ji yaa koy njëkk a dund yow yaay dund lii bànneexu ànd ak yàlla yow yaa koy yëg kenn du la ko yëgal sa mbir la waaw dund bu neexee noonu nan la nit mën a nangoo am yu doye di di ko xañ ci àddina lu ko jaru dara jaru xawma ku mosul loolu waaye ku ko xas mos da nga yëg ne dara waru koo wecc ci àddina dara mën na am nag ñun ñàkk xam gi nu ñàkk xam dundal sunu xol ci yàlla ba àddina dootul fees ci sa bët ak lu ca mën a am ñàkk gi nu ñàkk xam loolu moo tax loolu rëyul ci ñun waaye bu ñu mosee di ko wéttalikoo tuuti rekk te di ko teewlu ak di ko jéem a feesal ci sunu dënn ak di jéem a beccangal àddina di ko doyadal daanu dem ba yëg ne ndeke àddina du dund waay dañuy nax rek waaye dund dëgg mooy dund yàlla yàlla nañu yàlla xamal loolu ñu di ko wéttalikoo fu ñu toll ñu di ko wéttalikoo fu ñu toll ci ngay mën a noppalu ci àddina te di nga noppalu barzaq di nga noppalu alaxira arix naa yaa bilaal arix naa yaa bilaal yonent yàlla muhammad ka daan wax da daan toog ba yàgg rek mu ne ko Bilal kay fiixal ma noddal nu julli parce que xalaatu àddina yi ak calcul bu metti bi ñu nekkee ci àddina lu nekk nga bëgg ko loolu coono xel la loolu àddina di am ci suñu biir nee na bu dañul coono bi du dañ na Bilal nodd seytaane dégagé wu daw nga kàbbar wéttali ko yàlla ba julli gi jeex dootoo yëkkati àddina boobu dong nga mën a noppaloo wa illaa ku ko amul yaay def ni tuxkatu yàmba yi di def bare na kuy tux yàmba parce que dafa sonn dafa sonn ci xalaati àddina mu ne dafa bëgg a dem sixième continent parce que da koy xëcc ba absenté complètement nekk feneen su ko defee xalaat yu ñàkk solo yi mu doon xalaat ci àddina dootul ne ci bopp bi léegi mi ngi feneen mais alku mënoon na koo def digganteem ak yàlla te loolu la julli di jëriñ ci nit mooy fexe ba jëlee la ci alamu naasuut bii jëme la ci sa borom yàlla nañu ko yàlla yombalal ñu ñaan ko itam wax ko ne ko ñi ngi sant de waaye yàlla na dolli balaa bii lu muy rëy rëy ñu ngi koy ñaan yàlla bu mu yegg sunu xol mukk parce que xaju fi yàlla dong xaj ci xol yàlla bu mu yegg mukk ci sunu xol yal na yem ci sunu làmmiñ ñu koy tudd rek waaye bu mu am place mukk ci sunu xol ñi ci tawat ñëpp yal na leen yàlla saafara ñi ci